am na benn coow wax lu ndaw loo xamante ni dund na fi. Hmm. fekk yaa ngi wala mhm. mhm. mhm. foofu laa njëkk leeral kon sax mooy ne euh, loolu nekkul woon euh, sujet bi sax. Euh, ànd sàmm jikko yi bi ñu bi ñu yëkkatee li ñu yëkkati muy seen projet de loi boobu dafa am évolution ci yëf yi ni muy kii parce que imam Sall boobu. ci semaine ba ko jiitu dañ ko invité woon ci euh, beneen organe de presse moo dafay sax moo ko invité euh, mu wax ne waa ànd sama jikko yi ñoom li ñuy li ñuy euh, liite li ñuy woote dëppoowul ak lislaam maanaam li fi nekk sax moo tane ñoom li ñuy sàkku parce que jël ay góor jigéen tëj leen juróomi at moo gën nga tëj leen fukki at ndax boo leen di tëj itam foofu nga nga leen fan nga leen tëjee mu wax itam ngóor jigéen bu fekkente ne ñoom lislaam moo leen tax a jóg ngóor jigéen dafa am noo xam ne lislaam euh, waxee na ko noonu ne lii mooy atteem lii mooy atteem lii mooy atteem te ñële mu critiqué leen daal wax ne <coughs> loolu euh, dëppoowul seen lutte seen combat dëppoowul ak li war a am te moom d'accord yi léegi bi mu créé loolu nag comme que diine jamono format bi ñu jël nii mooy loo xam ne toujours euh, nit ñaa ngi koy laaj seen bopp te diine war ci am am am am réponse ci laa ne comme que comme que yëf yi am évolution kon xaaral ñu woo ay membre ànd sàmm jikko yi ak euh, euh, imam Sall boobu pour ñu rebondir ci loolu mu doon wax bu ko defee voilà bu ko defee moom mu leer sax ci ñaari côté yëpp ne lii la loolu cadre ci cadre boobu sujet bi loolu la woon mooy euh, homosexualité bi ak ndax lan mooy position lislaam lan moo gis-gisu lislaam ci homosexualité bi est-ce que combat wu ànd ji jikko yi dëppoo na ak loolu wala déet waxtaan wi loolu ci loolu la doon euh, roulé mais fekk amoon na beneen tomb boo xam ne itam Mame Matar Gueye fekk ci semaine boobu itam ki woon na ko euh, yëkkati woon na ko ci presse bi euh, te mu conseil xaw a sorewul thème boobu la muy rencontre boo xam ne formation yi ci li mu wax ne dafa dañu waroon dajaloo fii ci Dakar ñu noon kon boobu dañu ko ci ñambaas loolu moo nekkoon sujet bi boo seetee sax bu fekkente ne déglu nga élément bi bi ñu demee ba ci cat émission bu fekk sax def nañu ma si ne waxtu bi jeex na sax jeex na tàkk voilà bi mu jeexee noonu tàkk léegi euh, ci euh, ci laa laaj Mame Matar ne ko loolu nga doon wax ci rencontre boobu muy muy demee bi mu ciy développé nag lëkkale ma sànni foofu kaddu foog ma sànni ci kaddu ko loolu waxtu waxtu bi jeex na boo dégloo hmm. yaa gis nañu waxtu jeex na mu wax ci la wax nag ba dérapage boobu am si euh, daf doon wax ne maanaam bu fekkente ne toléré nañu ñoo xam ne mhm. euh, am nañu lu ëpp benn yàlla ak yu mel noonu kon ndaje ndaje waaw franc-maçonnerie boobu itam mën nañ leen toléré ndax beneen gis-gis la yu mel noonu ci la ñu taxaw kii bi noonu waxtu jéem waxtu jéem même sax amatul amul woon sa occasion nga mën a wax sax lu jëm ci loolu parce que waxtu wi jeex na te loolu nekkul woon bi li ñu war a mën a def foofu rek mooy waxtu wi jeex na te ñu dafa mel ne sax wàllu jooju sax ban nga jàppale bokkul sax ci émission bi parce que waxtu wi daal jeex na moom moom lañu doon tënk parce que fa on am na euh, information bu tàng tàng boo xam ne waroon nañ ko wax balaa édition du soir bi di commencé mooy li ñu fomm combat wu ñëli combat wu Modou Lo ak euh, Karim pression boobu ak temps bi mu jeexe moo waral euh, boo seetloo ñu ko doon tànk tàncanal pour ñu conclure may gars yi place boobu loolu mooy première chose ñaareel bi mooy euh, maanaam li xew loolu moom man yaakaaruma ne ñeen na ci ñu mën a xari la nañu ma ñu <laughs> ñu mu leen na xari yaakaaruma ko fekkoon tamit li ñuy nii ñu mën ko gis di ko pesé nii di seet di seet di seet ban moo gën a diis mhm. man bu boobaa dinaa mën a nekk candidat pour seet ba xam exactement est-ce que am na ku ma gën a diis loolu loolu noonu euh, la parce que dañu su du suñu habitude sax ci ci Walfadjri ñuy euh, def euh, daanaka day day dem ba nga fàtte yooyu sax fàtte ay discrimination ak nanga maanaam kii fële ka defee loolu bokkul ci suñu suñu suñu culture bokkul ci suñu suñu doxalin kon lii am nii damay jàpp ne dérapage laa koy tuddee rek baat boobu rek laa koy tuddee la boo xam ne dinañ ci tenir compte ci yeneen jamono bu ko defee ñu sóora gën a Euh, yu mel noonu. Euh, waaye daal cause bi daal mooy li ma jëkk expliqué rek la waaye nekkul loo xam ne intention moo ko jiitu woon wala wala wala yéen ña. nag ci def ngir mi ci boppam envoyé na benn audio boo xam ne jéggalu na ci. nee na bi ma koy wax jubluwu ci woon loolu. bu fekkente ne loolu am na ci mu muy jégalu ah, yaakaar na envoyé woon naa ko maam Biram mu ku seet Walf Net bu bi moom génnee na ko ci daal léegi lii mooy euh, li nga xam ne am na bu ko defee ña nga xam ne euh, sokke na leen jàpp leen ni ñoom wéetuñu ci ci sokke bi te li may li may wax fi propos reflété wul la religion islamique nekkul ne islam moo wax loolu. Mhm. benn nit moo ko wax ci. reflétul benn communauté boo xam ne moom fa la jóge wala yu mel mhm. noonu sax. Mhm. reflétul la population sénégalaise. oustaz loolu loolu am na solo am na solo moom kenn ci ki ko wax rek moom la moom la. rappeler euh, c'est c'est bon à rappeler que ni waa ji li mu wax moom la engage moom la engagé mënul engagé communauté islamique mënul engage kenn parce que du porte-parole islamique du porte-parole kenn. waaw ñu bari dañuy jaawatale membre fële la ànd moom du membre ci ànd sàmm Mm-hmm. noonu la ma maam Birame. Euh, imaam la maam Birame siiw nga siiw nga euh, mbir yi euh, tey jii da ngay bokk si ñi nga xamante ni dañuy jàpp ni que oustaz bi dafa nekkoon ci mission commandée parce que bu nekkee dañuy xool rek am na benn émission bu mu def fële ca 2STV ba mu ko defee am na benn partie bu ñu coupé woon parce que yaakaar naan seen courant dafa demoon miy wax di naan est-ce que li ma waxoon dina génn parce que lii moom bu génnee dina dina def buzz. bu ñu jàppee ni que moom dafay wut quelque part buzz wala wax joo xamante ni dafay dafay dafay choquer nit ñi est-ce que dinañ ko jàppal ni que li mu def nii juumte la wala loo xamante ni da koo xalaat bu baax la. Euh, mais xam nga man damay woote pour que ñu dépassionner ce débat euh, li xew yaakaar naa ne Oustaz il est très bien placé te wax na li nga xamante ne nii lépp moo ci xew. xam nga loo xamante nii da nga naan coup monté la mënul nekk loo xamante ni da koy wax pendant que kii nga xamante ni mooy animé émission bi moom mu ngi nekk di jeexale mm-hmm. am na nu mu doon demee sax yow loolu doo ko wax parce que émission bi da doon jeex. Mm-hmm. donc loolu mënuñu wax ne c'est prémédité dañ ko xalaat avant. mënul mm-hmm. nekk. xam nga man euh, mën naa accepter que quelque part Walfadjri def na méprise parce que am na loo xam ne rëcc na ko waru ko woon a rëcc. man yaakaar naa ne loolu mooy suñu responsabilité ci mm-hmm. affaire bi mm-hmm. nekkul un employé de Walfadjri moo ñëw tenir de tels propos mm-hmm. nekkul koo xamante ni il se réclame de Walfadjri moo tenir de tels propos un invité la comme nu ñuy amee invité yépp te mënuñu calculer ne invité bii nii kat bu toogee ci plateau bi lii mun na ko wax lii moo ko tax a très bien donc loolu bu doon dafa am ñu ne Walfadjri gën na am responsabilité mais loolu gis nañ ne amul jusqu'à présent ñun ñu ngi ci ligne éditoriale bu nga xamante ni jàmm lay woote lépp loo xamante ni dañ koy def pour mu gën a euh, jubóole sénégalais yi ci loolu la ñu nekk. man dama nekk ci dama administré euh, page Facebook Walfadjri mais depuis bërki démb maa ngi recevoir des messages surtout de menaces venant de euh, ñoo xamante ni ab boo à partir de seen tour danga naan c'est des à partir de ces parce que Facebook yi moom kenn xamul hmm. mais des menaces de mort des des des insultes à n'en plus finir à un moment donné moo tax ma ne il faut qu'on dépassionne ce débat hmm. bu nekkee Walfadjri commettre na maîtrise méprise mooy bu ma wax na sànq le fait que li émission nekkul en direct mu jàll loolu mën nañu wax ne c'est une méprise de Walfadjri mais méprise boobu ça été valable jusqu'à ce que Walfadjri génnee un communiqué pour présenter ses hmm. pour présenter parce que xam na ne même si bu nekkul un son euh, un de ses employés moo bàyyi moo def ce tel dérapage parce que euh, loolu mënul sax nekk parce que soo duggee fii Walfadjri yaakaar naa ne les grands noms c'est ay Georges Nesta ay Pierre-Edouard Faye donc un tel groupe mënul véritablement di promouvoir ni day wax luy manquer de respect à la communauté catholique du Sénégal donc loolu moo tax ñu présenter nos excuses bu nekkee euh, loolu bu mu amee ki nga xamante ni moo nekk le principal concerné wax li nga xamante ni waru ko foog na wax parce que ces propos là ñëpp dañ koy condamné. bu hmm. ñu ko ci interpellé oustaz mu koy wax léegi mais Saloum ba mu toll la il faut que mu def véritablement un message pour expliquer li nga xamante ni moom la bëggoon a wax ba pare présenter ses excuses te yaakaar naa ni sax loolu moo ci gën a am solo. il ne faut pas que tamit nit ñi di jàpp ne Walfadjri ku mu invité fii loo wax rek ça engage Walfadjri. loolu il faut que ñi ñu jàpp ne même si quelque part mun na am des erreurs mais fii ku fi ñëw di wax li ngay wax yow la engagé c'est ta sa sa opinion la bu amee loo xamante ni nii da nga ko da parce que dernièrement am na koo xamante ni def proféré na fi loo xam ne waru ko wax mais nit ñi bañ ko porté plainte mais euh, le le le juge l'a condamné. donc mm. pour dire tout simplement que ni fii loo fiy wax bul jàpp ne da nga koy wax pour que après Walfadjri assumer la responsabilité. Mm. même si ñun am nañ ci responsabilité mais ki nga xamante ni moo ko wax moom moo ci nekk le mooy nekk le premier mm. responsable. mais mais Mame Birame xam nga bëggoo ci dugg bu baax euh, yaa ngi wax pour ñu dépassionner mais tey jii quelque part est-ce que du euh, ñi nga xamante ni euh, ñu ko yónni entre guillemets parce que même bu nekkee fin émission la insister na pour wax wax jooju ñu ngi koy dagg dagg nañ ko ñaari yoon ñetti yoon mii continuer di wax wax na ko deux fois moo juumul est-ce que quelque part du loolu nañ ci bëggoon jéem a fexe ba jaxase Walfadjri ak benn communauté pour wan ni leen que ni yéen comme yéen fi bëgg a teg ay ànd sàmm jikko yi dañ leen di wan ni vraiment que yéen déjà da ngeen sax dañ leen di décrédibiliser de telle sorte que euh, lu bëri li ngeen xamante ne ko doon jéem dootul en euh, ngeen koy entreprendre dootul sottee non pas Matar man yaakaar naa ne képp koo xamante ni am nga mission jóg ne da nga bëgg a jaxase Walfadjri ak la communauté catholique. Mm-hmm. mooy que sa mission mënul sotti. Mm-hmm. ce n'est parce que fii c'est Sénégal en miniature. tout le monde est représenté. Mm-hmm. képp ko xalaatul ne euh, mu ngi Sénégal. képp koo gis mu exister au Sénégal rek xamal ne il est représenté dans cette maison donc jàpp ne mun nañu féete fii wala mun nañu féete wala mën nañu féete fële loolu je pense que c'est juste peine perdue quoi. Mm-hmm, mm-hmm. Aliou Sow euh, peine wala euh, dérapage la comme ça existe partout da ngay parfois parce que nit mënul di dëkk di wax loo xamante ne lu jub la parfois am na lu ñuy tuddee écart de langage bu amee da ngay excusé wu da ngay amandé wu askan bi aussi ñu accordé le pardon parce que aussi ñu ne ñu été fait puisque euh, euh, sunu ustaas wax moom la waa ji euh, yónnee comme message boobu mu def Euh, ba maam Birame wàcc jot na ko ba euh, euh, wane ko ba yëpp donc ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy déglu te xam nañ ni effectivement il est évident que ni c'est une ce sont les risques du métier mais surtout plus particulièrement les risques du direct lan nga ci mën nit ñi ngay invité mënoo am son contrôle surtout quand on est dans un régime de démocratie mënoo am nit ki son contrôle à maintenant ay écart bu effectivement Walf li mu ci wax wax na je crois que Oustaz wax na ko Mame Birame Mame Birame Wathie wax na ko aussi et eh leer na nañ polémique bi moo fi moo fi moo fi moo fi war a jeex et puis euh, euh, et puis que qu'on s'en arrête là qu'on passe à autre chose Walfadjri wax na waaje baalu naax je crois que c'est terminé quoi li ñu ci war a amul leneen ñu ci war a teg li ñu war a teg moom mooy ñu fexe ba yu mel nii euh, bañ fi amati te surtout que sax li may wax nii Euh, wax la rek mais mënuñu ko maîtriser parce que ki ngay invité mu ñëw toog tu ne pourras jamais su être sûr à 100 pour cent euh, surtout quand c'est dans euh, justement le le direct c'est d'une évidence que ni mënoo contrôler nit ki à 100 pour cent parce que wax bi le temps que muy génn si gémmiñ gi mais mu fekkoon intervention sax dafa war a am au niveau de la technique c'est sûr que dina am lu jot a jàll ba pare te lu jàll dugg ci nopp nit dégg nañ ko ba pare après c'est trop tard donc ça ne veut absolument rien dire on ne peut pas contrôler cela loolu mënoon na dal beneen chaîne de télévision mënoon na dal yeneen rajo mënoon na dal yeneen structure donc et dafa yàgg di am sax maintenant euh, euh, euh, kooku def na li muy def expliqué na jéggalu na pas explication bi sax amul solo li am solo mooy jéggalu parce que foofu hmm. explication hmm. a été fait entre justement euh, euh, les loges maçonnique et la religion musulmane euh, et la religion euh, donc catholique ñaar yooyu parallèle boobu la bëggoon def ce qui est inadmissible et inconcevable voilà maintenant euh, euh, xam nga nit bu jéggaloo wax dëgg yàlla bu fekkee ne sax ñun ay julli lañu wala on a la foi foofu la ñu war a yem wax bi quoi jéggal nit jéggal dafa dafa dafa dafa seral jéggal pour seral la jeex na quoi anesthésié nañ la ni que celui qui n'a jamais péché lui. mais jeex na. na waaw na yëkkati na ko sànni pierre. waaw hmm. kooku kooku kan moo yëkkati loxoom. Ah, boobu jour de euh, hmm. Jésus Jésus mu sell bi moo ko waxoon. mais mais kenn sànniwul woon. maintenant après ko dañuy lapider benn femme mu ni ku nga xamante ni tooñul. waaw musul tooñ na njëkk sànni na njëkk sànni musul tooñ na njëkk sànni. mais kenn hmm. sànniwul. donc ku musul tooñ nañu sànni xeer. mais mais mais xam nga loolu mooy ñooñu ñoo ñoo wàccee seen loxo yëpp kenn nanguwul sànni. Mhm. ñooñu mooy ñoom ku si nekk ak sa akulaay taala moment boobu xam nga ne yow mës ngaa tooñ loolu moo tax nga téye sa loxo. Mhm. Mhm. moo tax kenn yëkkatiwul kenn jëlul xeer sànni. le xam nga man man pour man wax bi woon yegg ba fii. et puis surtout que solo est-ce que euh, dans l'hypothèse où que on euh, justement ñoo xam ne dañuy jéem a jaxase carte gi ak yu demee noonu. ce serait pas télécommandé je n'en sais rien bu fekkoon ça serait télécommande peut-être que bon j'en sais rien parce que mën nga def li nga def ba pare ñëw jéggalu aussi mm-hmm. yaa ngi <laughs> loolu loolu na quoi mais l'essentiel mooy na message boobu jàll rek mm-hmm. d'un seul coup pour ñu décrédibiliser une chaîne de télévision bi nga xam ne wax dëgg yàlla mu mu tudd adduna bi Sénégal adduna yëpp xam ni c'est la voix des sans voix mm-hmm. wax yàlla c'est la télévision justement moi je dirais du peuple d'en bas yaa ngi dégg donc forcément du jóguñu justement euh, moom la ñu mettre justement. ñi ngay wax léegi ci commencement émission ci diggante hmm. sëñ Fallou ak li nga xamante mooy. mais mais mais Pape Matar euh, <laughs> hmm. euh, yi dafa genn benn place bi pour benn place pour. oui boo demee fii Joal. c' est exactement la même chose à boobu nga wax sax. Hmm. mu ngi mel ne kaawu Sénégal sax du kaaw dialogue islamo-chrétien mais cohabitation la. cohabitation maanaam dañu dem ba mu nekk loo xam ne. ci diggante bi sax dafa commencé di am ay kalsa. Mm-hmm. en général léeg-léeg sax moo bu bi mën nañu ko dindi sax def cohabitation islamo parce que kaaw mm-hmm. Sénégal ci ci woowu. Mm-hmm. Sénégal bi nga xam ne moo fal premier président boo xam ne. beneen diine la. quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit. ñu euh, fal cinq pour cent yoo xam ne matu ko sax ci kii boobu loolu mooy wane ne. Sénégal ni ñuy fonctionner. Mhm. mooy li nga xam ne ci côté boobu mooy li nga xam ne noonu la diine euh, diine l'islam santane pour ñu fonctionner ko. Mhm. damay mhm. insister waat wax ne. propos yooyu reflété la religion islamique. reflété wul kër gi nga xam ne moom la kooku jógee reflété wul kër gi nga xam ne fii lañ ko waxee. waaye euh, benn ma euh, borom xam-xam daf doon wax ne. bu jaan màttee bu jaan màttee nit ci sa kër. fu fu matt matt ba àgg rek sa kër dina fa àgg. dëgg la <laughs> loolu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu dal ci kii mais Aliou Aliou Sow mm-hmm. xam nga wolof dee naan euh, yow la fu mu yegg du man yeggu fa. Mm-hmm. est-ce que tey jii quelque part parce que bon maam mi ngi koy wax parce que am na ñoo xamante ne aussi ñu ngi profité ci situation bi di envoyé nit ñi ay saaga ak yooyu est-ce quelque part aussi euh, waa ji li mu def tayu ko. bu ñuy mm-hmm. fàttaliku ni émission bi mu defoon 2S. parti boobu fuité mais dafay wane carrément que ni moom émission tendancieuse la doon def dafa doon ñëw pour wax loo xamante ni dafay attaquer benn benn benn organisation bi mu jàppee ni ciblem la ba mu jógee foofu ñëw fii est-ce que mënuñu jàpp que ni dafa nekk ci benn mission boo xamante ni mission commandée la comme Walfadjri moo tegoon parce que bu ñu fàtte ni ba télé yëpp passé sous silence Euh, manifestation ànd sàmm jikko yi Walfadjri moo ko teg absolument alors Walfadjri boobu noonu comme moo leen di jox kàddu mm-hmm. tout à fait teg ay plateau di leen teg ci ay plateau ñiy wax li nga xamante ne peut-être arrangé leen est-ce que tey du ñu jël Walfadjri def ko cible. mais c'est une euh, mais dama xaw a ragal tuuti parce que ragal mooy ragal yàlla damay jéem a maanu tuuti mais sama xel bi aussi mi may pousse ci forcément pas li ngay wax ne parce que quand même y a y a a quelque part euh, lu tubaab di wax voilà euh, euh, xëy na nag ma mm-hmm. uh-huh. ko woo mm-hmm. Mm-hmm. ma dégloo moo ko Maodo Faye boobu uh-huh. ak li mu wax ci ànd sàmm jikko yi laa gis ne kon beneen version ñëw na. Mhm. léegi nag il faut ñaari côté yëpp ñëw. pour euh, pour débat bi mën a mën a mën a avancer. mu a si bopp askan wi. Mhm, mhm. loolu moo moo tax ñu maa ko mu ngi doon kii sax pourtant mu ngi doon wax ne sax dafa xaw a tawat dafa xaw a kii mu nga Louga barke dimbali jógee Dakar mu xawoon na pose problème mu sax est-ce que dina mën a ñëw. après mu ne ma dinaa rappelé waat moom loolu moom côté démarche bi pour pour invitation bi moom ma ñoo ko. ñoo ko ñoo ko woo. Mhm. te prétexte boobu itam moo tax ñu. mais woote bi woote bi changé wul dara ci nit ki li mu mën a xalaat ak ni mu war a mun a doxalee. bu fekkoon ne loolu la. Mm. Mm. nekk di dem ak sa même état ak fu ñu bu doon ginnaaw suba ginnawaati suba aussi ci benn rajo. Mm. ci même moom ngay doxee. donc donc donc moi je pense que je bon euh, yal na yàlla dimbali quoi Pamada ñu def moytu li ñuy wax parce que am na ay wax dafa génn ci yenn gémmiñu kilifa yi dafay dafay xaw a euh, dafay xaw doy waar surtout hmm. juste rek pour finir ay euh, ay Mame Birame Wathie euh, ci kii boobu nu mu tudd tur yooyu yooyu yëpp mun na nekk xeetu jaxase parce que kii bind di saaga du def mukk en général turu catholique lay def pour ñu gën a mën a fësal ni que muy gën a mën a fësal ni ño ci ñoom la bokk moo tax mu réagir ni mun na sax nekk euh, Ibrahima te fekk ni def turu Ibrahima fekk mm. fekk fekk ni fekk ni fekk ni du du du du du du du du Benoît Ibrahima tout simplement Mame Birame waa ci accident Lamine kenn du ko constat waaw de toutes les façons loolu xam nga bu nekkoon oh, euh, ay benn message ñaari message uh-huh. mais c'est des dizaines de messages nekku new ma sama compte lañ ko envoyé mais compte Walfadjri mm. donc pour dire que ñooñu noonu vraiment fi ñu te li ma ci gën euh, jaaxal sax mooy. Mhm. que yenn message yi ñoo ngi ko jot après que Walf a présenté ses excuses mhm. Mhm. après que ki nga xamante ni moo wax li nga xamante moo leen metti présenté ses excuses donc man je ne comprenais plus la raison de ces message des messages violents ay prépa euh, soyez près on arrive <laughs> comme si. Euh, boo waxee loolu ñun dañuy tëj suñu bureau yi daw génn. donc li ñu wax leer na. fii un invité mënu mënuloo xam. précisément. lan lañ wax du à la fin. mënu loo ko xam te comme oustaz la si bien dit bu kenn yaakaar ne Walfadjri dañuy jékki-jékki rek toog seen benn nit muy dox ci mbedd mi ñu woo ko invité ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ça ne mm-hmm. jamais passé comme ça. comme oustaz la si bien dit kooku dafa tenir benn version boo xamante ne ni mais version bu taxaw la bu wuutee ak version wu ñële donc mën a da leen di invité sur un plateau pour que euh, dans un débat équilibré. mu nekk wax li nga xalaat. je pense que compétence ci xam-xam bi mais mënuñu am garantie ci li muy ñëw wax ci plateau mais tout à fait tout à mm-hmm. fait parce que euh, mais c'est comme tout le monde rek ma euh, man mii nii suñ ma woowoon tey jii nii invité ma beneen télévision c'est parce que dañoo jàpp ne nii ak nii laay waxee su ma fa ñëwee toog ba wax fa leneen loo xamante ni euh, waruma ko fa wax mais c'est ma responsabilité te ñoom mënuñu woon a xam ne dinaa ko fa wax donc c'est aussi valable pour sa imam Lamine Sall mm-hmm. oustaz ku ko xam-xam ne du woo nit nit pour que véritablement muy am lenn loo xam ne dina ko wax oustaz matal nga ñeent jabar ah matal nga ñeent soxna des na des na des na ñett kon ñaata la da ngay dem da ngay dem Grand yoof Ah. ci suñu mbokk catholique ngay wut si benn mi ñeent wala ma ñaar wala ñaar <laughs> waa waaw dem fa nga wut ñaar comme ça dina la dinañ la jégal jar na ko ndax jàmm am bu defar condition boobu itam mu am <laughs> incha ma dara man du ma laaj ndax ndax ndax bëgg naa wala bëgguma moom daal man xale yu xamul ah. yow tubaab nga doo sénégalais boo nekkoon sénégalais ñu waxtaan xam nga waxtaanu sénégalais tamit tubaab yoonam newu ci <laughs> di leen ah? tubaab yaa ngi tuubaade Pape daal tubaab yaa ngi tuubaade lan di <laughs> tubaab yaa ngi Touba léegi. yan hmm. waaw mais bien sûr mais mais ba tey ñu sénégalais. <laughs> di leen di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax di hmm. wax nii ko voilà. <laughs> voilà euh, balaa ngay tëj nag li may conf euh, balaa ngay tëj li may confirmer waat rek mooy euh, uh-huh. jéggalu yooyu ah. parce que nit ki boo waxee lu ko choqué. da nga ko war a jéggalu. dëgg la parce que nit warul choqué nit la rawatina nag soo choqué ko ci wàllu pas-pasam wàllu ngëm-ngëmam loolu moom koo ko def da nga ko danga ko danga ko war a jéggalu ñu ngi renouveler waat jéggalu yooyu yëpp ci ci euh, ci sénégalais yi pan ah, laay wax. Mm-hmm, mm-hmm. parce que euh, bu ñu yaakaaree ni ñu la ñoo ko wéetoo rek. ci mm-hmm. lii juum nañu maanaam lu aw yoon ak lu awul yoon. ku am xel rek euh, da ngay xam ne lii teguwul ci yoon. su dee lii bépp sénégalais bu naturel. jàpp nga ne lii moom. jaaduwul yenuwul ma yenuwul maana te warul ci biir Sénégal ak avancé bi mu am ci wàllu cohabitation kon lii. Euh, jafe-jafe la ci wàll woowu waaye ñu ngi koy ñu ngi koy jéggal bu baax jërëjëf jërëjëf oustaz euh, yaakaar naa sa jéggal yi daañ la ko def te daañ la dégg bu baax a baax euh, di jéggalu rek xam nga wax moom dafa metti te maa ngi koy wax mm-hmm. léegi accident la moom kenn du ko constat <laughs> boo xasee ba wax loo xamante ni erreur la moom dafay dafay jafe pour nga kii ko pour nga rectifier ko encore que du yow yaa ko wax du hmm. élément wal fajri moo ko wax hmm. invité la boo xamante ni dafa ñëw ñu jox ko benn tribune pour mu hmm. wax peut-être xalaatam mu déraper wax yoo xamante ni kenn mënu ko accepté donc dañuy jéggalu ci turu wal fajri dañuy jéggalu bu baax a baax a baax jéggalu ci sénégalais di leen joxaat rendez bu demee incha allah ci euh, beneen numéro keppaar gi